ميادين الحياة نتوحد ونفرق bon loolu moo ñu moo ñu moo ñu dajale ci mbooloo ci bésu tey bii bés bu kawe ci ñun bés boo xam ne lépp loo xam ne yiw la ak mbaax la ak lu yëkkati doomu aadama dëgg-dëgg ku ne xam ne ne dégg nañ ko fii gis nañ ko fii ndax awal cheyen mooy daje nañ ci zikrullahi tabaraka wa taala daje nañ pour tudd yàlla te yonent nee na tudd yàlla mooy sinaamul amri sinaam mooy ni ñu ko waxee ci ah ah colonne vertébrale bu giléem noonu mu noonu mu mu ne zikrullahi ci lislaam mooy colonne vertébrale bi nga xam ne foofu la yëpp a am su ko defee bu fekkee ne loolu mooy tudd yàlla daje nañ pour tudd yàlla tey jii ngir fa nga xam ne fa la lislaam yem àgg nañ fa ci bésu tey bii teg ci nag li ànd ak tudd yàlla yépp ci zikrullah yonentu nee na man qaala laa ilaha illa allah daxala aljannata yonentu nee na man qaala laa ilaha illa allah wajida min allahi tabaraka wa taala xifzan fi yowmihi wa leylihi man qaala laa ilaha illa allah shahidat lahu almalaikatu bi anna hada alabda shahida bi tawxid alima tawxid allahi wa waxdahu fi kulli hadihi al barakat yoo xam ne mi ngi ci biir laa ilaha illa allah tay yàlla may nañu ko ndax daje nañ pour wax la ilaha illallah wax nañ la ilaha illallah yonent wax ko duggu aljanna wax ko yàlla bal la say bakkat wax ko yàlla boole lak ay malaka yo xamné dañ lay sam wax ko yàlla yëkkati la ba fi nga bëgg ag ci adina wax ko yàlla ubbi la say wërsëg waxal la ilaha illallah yàlla bal la waxal la ilaha illallah yàlla duggal la aljanna ba wax ci yoo xam ne man qaala laa ilaha illallah daxala aljannata walaw sariqa walaw zina di la sàcc na di la njaaloo na waaye boo waxee laa ilaha illallah te gëm ko ci xolam ndax bu ko xamee xasee gëm ci xolam rek dootu sàcc dootu njaaloo ah du sàcc du njaaloo moo tax mu ne man qaala laa ilaha illallah muminan musaddiqan دخل الجنة وإن سرق وإن زنى لأن إذا صدقت وآمنت حقيقة لن لن تفكر في هذه الأمور ba nag si ngoon gu tedd la ngoonu tudd yàlla tudd nañ yàlla te benn laa ilaha illallah rek yonent benn waaye ñëw na ci boroom xam-xam ne ko tur yi ñuy tudd yëpp di ko ñaane yàlla te boo ci tudd boo ci jàpp rek yàlla dina la àggale ci dara ndax tur tur yooyu yëpp am na benn tur bu ko dajale mu ne ko waaw mu ne ko ban la mu ne ko laa ilaha illallah boo waxee laa ilaaha illallah turu yàlla yëpp dajale nga leen boo ñaanee yàlla ci turu laa ilaaha illallah na nga xam ne lépp loo xam ne nit ñaanee na ko yàlla yàlla dajaleel na ko yow ci sa ñaan googu may la ko <laughs> tax quelquefois nit ñi dañu gis ëppante wërsëg waaye du ëppante wërsëg ëppante doxalin la ëppante doxalin la parce que yow yaa ngi am yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu yaa waxaabu waxaabu dina yow waaye kenn lay doon waaye laa ilaaha illallah yëpp nga ti saw ti yëpp nga boole ñu ñëwandoo daa fekk daf laa dàq liggéey waaye daf laa ëpp wërsëg daf laa dàq liggéey yëpp ubbeeku bon tur yàlla yi ñuy oo yëpp di ko ñaanee tey dajale nañ tur bi nga xam ne moo gën a màgg ci tur yi mooy laa ilaaha illallah te yonent dugal na la ci aljanna faral na ci say bàkkaat may na la ay malaaka ñu di la wër guddi ak bëccëg yëpp di la di la garde ci seytaane ku wax laa ilaha illallah dawloo nga seytaane ay téeméeri téeméeri kilomètre pour mu sori la boo ko waxee rek seytaane daw na ñemeetu laa jege bon daje nañ ci bés bi wax nañ ci laa ilaha illallah loo xam ne lu bëri la yal nañu yàlla may yal nañu yàlla may loolu mu dénk ci salaatul fa ci laa ilaha illallah yal nañu ko yàlla may yàlla may nañu ci bés bi daje nañ wax nañ allahuma salli ala sayyidina muhammad julli nañ ci yonant ndax boo xee xase wax la ilaha illallah dara sësatu fa lu dul muhammad rasulullah muhammad moomu nag yàlla daf ñoo may ci moom loo xam ne moom lañuy jëriñoo ci jëm ci yàlla mooy lan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ñu may ci loolu ci yonent gis nga ni yàlla takkalee digganteem ak yonent yàlla muhammad ne su ngeen yéen julli ñi julli leen ci yonent bi ndax nu ko yàlla jegele ngeen mën am loolu ci moom yéen tamit mën a yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne ëllëg yéenay nekk ay rufaqaa um fil jannati ku la gën a mën a tudd yonent yàlla muhammad ku la gën julli ci yonent moo la ëpp daraja ku la ëpp yonent moo la ëpp leer ku la ëpp julli ci yonent moo la ëpp kawe moo la ëpp xam-xam moo la ëpp lu nekk parce que laa ilaha illallah jeex na mooy nihaaya waaye gannaaw nihaaya bi nag jeex na fi nekk nag da ngay ñëw ci àddina pour dund si ci biir àddina booy dund si ci biir àddina nag yonent mooy bunt bi nga xam ne moo lay àggale ci àjjana ba nag bala ngaa dugg ci yonent boobu na nga fëgg sa bunt na nga fëgg buntam nooy fëggee buntam mooy allahuma salli ala sayyidina muhammad boko defé rek bunti yëpp yàlla mën na la ko biral yombal la ko ta tay yàlla may nañu def nañ ci salatu ala nabi lo xamne yàlla yàlla nañu yàlla may mbot yim ci denc ne dina ko defal ko xamne mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daje nañ ci bésu tay bi ngir fataliko wajhun min wujuhit tarikh ño xamne ne soppale nañ tarikh amna ay góor ño xamne dañuy romb rek dem ci adina bon góor ñooñu wala noonu lañ noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko tànn mais am na góor ñoo xam ne duñ dem mukk te bàyyi wuñ fi loo xam ne dafay jëriñ doomu aadama parce que loolu leen yàlla bindee pour ñu ñëw nekk njëriñ pour doomu aadama yonent yi ñoo ci njëkk gannaaw gi awliyaullahi tabaraka wa taala ñoo ci topp awliyaullahi tabaraka wa taala ay borom daraja lañ ëppante ay daraja comme ni yonent yi ëppante daraja tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin وتلك الأولياء أيضا فضلنا بعضهم على بعض باسكا دو أولياء يي في جار ييب ньо في باي في تاريخ لو خامني دوما داماي نيون سي لانغامو كوم نين لانغامو سي لي في شيخ متيان باي طريقه تيجان ني سي لانغامو سي ادنا بي ولا يو باي جيف نان شيخ متيان مي باي وي في لون سي لانغامو كوم نونو بو دمي تام الفايده تيجانيه ني سي نين ني لانغامو سي ادنا بي ييب بو دمي دو فك aw euh, yeneen awliyaaw yi bàyyee nañ fi loo xam ne nit ñi dinañ ci langaamu te gis ci seen njëriñ mën ngaa langaamu ci dara te njëriñ nekku ci mais mën ngaa langaamu ci loo xam ne boo ci langaamoo nag danga koy da koy bëgg bëgg bëgg ba bëgg ko toxal ci sa doom bëgg sa doom toxal ko ci doomam ndax lu kawe la lu yëkkatiku la luy dolli doomaa dama ma xamala fii ci àddina luy musal doomaa dama ëllëg ci àllaaxira moo nekk noonu moo tax dono yooyu du góor gu nekk ku fi mën a bàyyi góor rek ñoo ko fi mën a bàyyi faddalna baadahum ala baadin loolu dafa am su ko defee nag ci fàttaliku Cheikh ma danañ fàttaliku góor gu nga xam ne lépp lu àddina laaj pour kawe jaar na ceeb jàngal na ko doomu adama te àddina munta kawe fenn fudul ci buntu yàlla fudul ci gëm yàlla maa ngi gis léegi benn waaye ngi taxaw di sànni xaalisam rek waxuma sànni waaye mu ngi maye xaalisam kooku foofu mu toll noonu di def fan la ah, foofu mu toll di def bay gisatul àddina gisatul dara gisatul xaalis gisatul li nit ñi di reyantee yëpp mu ah, ah, yëpp jeexal na ko lan la loolu boo àggut ci daraja ci nekkal yàlla ci xam yàlla loolu ñemewoo ko waaye boo xamee ne lu nekk ci àddina bi neen la yàlla rek mooy dëgg nga dem ba àgg ci yàlla bëggatoo loo xam ne daf lay tinoon moo tax Seydina Omar Seydina Moussa yonent yàlla Moussa mu jógee ca muxaatabatullahi tabaraka wa taala bi mu wàcc ci nit ñi mu ne nit ñi bu leen wax parce que seen wax yi daf may wëcculoo ndax du wax ah déggee waxi ñi damay wëccu ndax du wax ndax waxi yàlla jim dégg ku jógee ci wax yàlla looy déggee waxi waaye saa yi na nga def du may wax waxut dara su ko defee nag boo ah boo àggee ci daraja yi yaa ngi nekkal yaa ngi nekkal yàlla xam ki nga nekkal amul dara lu wóoloo ci sa bopp lu yem ni kooku nga nekkal nit amul lu mu gën a wóolu lu yem ni yàlla ci moom waaw ah? yàlla yàlla la gën a wóolu ci boppam tey tey loolu mooy dëgg ndax yàlla moo ko gën a teew ci boppam yàlla moo gën a teew nit ki ci boppam ndax al awalu al axiru al zahiru al batinu wa huwa bi kulli shay'in alim fo yëmati jeex na c'est fini soo xasee àgg foofa nag da ngay da ngay da ngay jeex ci yàlla boo jeexee ci yàlla yàlla dal di soppeeku ci yow comme ni waa ji doon def xaalisam bi léegi jeex na ci yàlla xam na yàlla fa nekk rek di def yàlla fa nekk di def ci mbaaxu yàlla la ci yàlla ngi génne mbaaxam yàlla ngi génne na àddina bi yéen aj seen bakkan yi foog na dara la àddina bi taxu ko foor noonu li foor dëgg-dëgg mooy man yàlla parce que maa lay amal njëriñ fii maa lay amal njëriñ ëllëg maa lay yëkkati sa daraja fii maa lay yëkkati sa daraja fa ëllëg te darajaay ëllëg nee na wala wala akbaru wa wa um,

dañoo bëgg a nekk nit ñu xam dañoo bëgg a nekk nit ñu am yar dañoo bëgg a nekk nit ñu yëkkatiku te loolu yëpp mënuñ koo am lu al awdatu ila allahi tabaraka wa taala inna al izzata lillahi wa li rasulihi wa lil muminin yàlla yooyu ñu bëgg yëpp di ko gëstu yàlla moo ko am te yàlla nee na ko dara ñëwal yow sama jaam talal sama loxo taalal sa loxo ma may la ko yow ñëwal ut si ko ci man ma may la ko donc bon dama dama suñ jotaay bi liñ ci bëgg am yëpp yal ñu ko yàlla may dañ cee bugg am dañ cee bugg am nit ku kawe dañ cee bugg am nit ku baax dañ cee bugg a am nit bu civilisé dañ cee bugg a am nit bu am yar nit bu am teggin nit bu am comportement nit bu am xam li muy wut ni mu koy wutee parce que am na façon ut boo xam ne yàqal sa bopp la waaye du ut ah waaye am na façon ut boo xam ne boo ci jaaree li ngay ut yaa ngi koy ut donc jotaayu tàkkusaanu dellu ci école Cheikh Ibrahima pour jànga jàngaat suñ bopp ñun ñooy ñaan jàngaat suñ bopp suñ njëriñ ci àddina mooy lan suñ njëriñ ci àddina mooy dëgg-dëgg nañ jéem a def nit muy nit nit muy nit parce que nit ci la yàlla denc mboolem ay mbóotam bu nit ki baaxalee boppam mbuut yooyu yàlla denc ci moom daf koy génnee muy njëriñ ñeel mboroomi nitam waaye bu nit yàqoo mbóot yooyu dafa yàq bu génnee dafa yàq doomu aadama ak yàq moroomi nitam loolu loolu moo fi nekk waaye su fekkee nag am nga ay leçon am nga ay dar ci àddina am nga ay nit ñoo xam ne jox nañ la ay misaal yoo xam ne royukaay la pour nga àgg ci nit kooku yàlla di wax ci alxuraan ba di ko tiitaroo yàlla di ko di ko di ko di ko fonk ba di ko tiitaroo yaayul mu zëmil yaayul mu dasiru wa na ila rabbika rujaa yooyu yëpp yàlla daf koy wax pour tiitaroo ko doomu aadama yëkkati ko màggal ko loolu yëpp nit kooku dëgg-dëgg moo fi indi woon Cheikh Ibrahima pour mu préparer ko pour mu amal ko te boo demee da nga gis ne Cheikh ma amoon nañ ci lu bëree bëri jotaay bi Sénégal la xewee waaye yaa ngi gis benn waay buuri Gaana mu ngi ñëw ak seen yére buur yi ñëw toog ak ñun baadoolo yi te mu ngi nii toog toog ak ñun te buur na te buur ni muy kawee waaye gis na ko tey mu ngi ñëw nekk fi parce que nit nit rek la ah boo ko tegee ci kaw nit mu xam yàlla dana xam ne ne lii dara la waaye lële itam dara la te lële moo gën a kawe lële moo gën a kawe lële moo gën a màgg nekkal yàlla moo gën a kawe nekkal yàlla moo gën a màgg nekkal yàlla fa la mbaax nekk nekkal yàlla fa la fit nekk parce que ah, voilà buur baa yàlla moo nekkal yàlla fa la lu nekk nekk fa la yëkkati ku nekk waaye su fekkee am nga yaakaar ne am nga feneen foo mun a amee loolu yëpp te yàlla du ci dugg vraiment da ngay nax sa te te yàlla dina la ko jox nag waaye daf la koy jox nga dem ba ci digg rek mu yàqu ah comme Union soviétique dem na ba ci digg mu yàqule jeex na c'est fini ah, ak yeneen ak yeneen ñi nga xam ne dañuy tabax seeni programme ne dafay jàll ni waaye du jàll parce que walla gis ngeen li xew fan yi ci États-Unis ci ngelaw ngelaw ak taw lim yàqal États-Unis ay milliar et milliards lim yàqal Italie lim yàqal Europe yëpp lim yàqal sax ba ba wala Afrique yenn ci pays Afrique yi te nit mënu ci rek mooy li fu mu koo xamuñ ci dara mënuñ ci dara technologie bu rëy boobu yëpp mënu dara ci leelu xew ci seen réew yi alag leen yàqal leen loo xam ne yàqal leen loo xam ne seen guerre yi sax mënu leen koo yàqal bon yàlla rek moo am kattan boo xam ne ci la doomu aadama yi jëriñoo pour am një pour. jëriñ ci àddina bi ëllëg ci alakhira ndax xam yi xew ci réewu Europe yi mi ngi xew États-Unis mi ngi xew Arabie Saoudite tam xew xew na fa bu yàggul waaye boo demee nam lay ñële wu ko wu ko jullit ñi parce que jullit xam na ndogalu yàlla nangu na ko ah bu bu bu ndogalu yàlla ñëwee yàlla wax na ko ne waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah waxal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaayika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaayika humul muhtadun noonu la loolu loolu loolu la jullit am te amul lu ko gën a dëgër boo amul yàlla nag baat yooyu doo ko mën a wax xamoo ko bu ko defee yow yuuxu rek ak yooy ak euh, caalit rek nga am ak caalit ak yuuxu comme lii dal américains yi fi nekk nii ak europe yi seen suuf soosu ñëw ngelaw loolu ñëw ndox mu di daane seen kër yi di daane seen néeg yi di leen rey te vraiment xamuñ lii lan la xamuñ ko fu mu bàyyeekoon doole ju am ni foogoon na ñun rek ñoo ko am léegi am na keneen ku ko am te bu ñëwee bu koy indi duñ ko gis pour fayee ko ah daf koy <laughs> daf koy def ba ñax ko rek mu dem voilà donc bon dama dama amut kàttan yàlla moo am kàttan dama dama amut doole yàlla moo am doole bañ sukkandiku ci yàlla ci suñuy soxla ak suñuy ñaan nañ wóolu yàlla nañ gëm yàlla waaye itam nañ wóolu yàlla nit mën naa gëm yàlla te du wóolu yàlla waaye nag gëm yàlla wóolu yàlla ci nga xamee ne yaa ngi làqu foo xam ne mooy làquwaay bu dëgër yaa ngi làqu foo xam ne mooy dëgër lu waay Cheikh Baye may jàngaleem ci doomu adama mooy ne doomu aadama yëg fooraayam ci yàlla parce yàlla moo wax ne xalaq nen ci ay njuumaan ci ay kondroŋan ci ay ay ay nag ay bëy ay lu yoo lu nekkan ci te loolu yëpp yàlla def la bind yow doomu aadama ji pour ngay communiquer ak ñoom ah te yaa ngi communiquer te ak ñoom te yaa ngi communiquer ak ñoom xam nga ndax yaa ngi koy def walla defoo ko loolu beneen affaire la loolu xam-xam la waaye boo ko xamee

kii dafa am jinne dafa mun a wax ak jinne yi dafay def nangam ak nangam yooyu yëpp di koy dégg di koy gis di ngeen di gis nit ñoo xam ne kii dafa am secret ci ci njaa àll yi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg yooyu ba ba ba dafay mën a wax ak ñoom dafay mën a déggante yooyu yëpp ñu ngi koy wax ci kaw suuf si te yooyu yëpp communication bi nga xam ne yàlla moo ko def digganteem ak mbindeef yëpp mbindeef yëpp yàllaa ngi def communication seen diggante ñun nit ñi ak malaaka yi ñun nit ñi ak seytaane yi ñun nit ñi ak mala yi ak yàlla yi yëpp ñu ngi communiquer ñu ngi jokkalante ñu ngi déggante ñu ngi jàngal ñu ngi jàng ñu ngi jàng ñu ngi jàng ñu ngi jàng ci ñoom ñu ngi leen di jàngale itam loolu yëpp dafa mi ngi ci biir àddina bi àddina bi boo demee itam dangay gis ne euh, suñ jotaay bi ay ay xeet yu waree fi daje tukulóor wolof bambara séeréer ñun ñëpp a ngi fi daje ñun ñëpp li ñu dajale ñun ñëpp li ñu dajale yëgu yëgu yëgu intérieur la du yëgu biti parce que yëgu biti dafay gaaw a daanu waaye yëgu biir la ku nekk yaa ngi yëg loo xam ne bëgg nga cee àgg ñu lay won leen ñii moo la ciy àggale lii moo la ciy àggale ah yàlla wax nañu ne bu ngeen bëggee agsi ci man tudd leen ma tudd leen ma yàlla moo ñu ko wax fazkuruni fazkuruni boo bu la waxee loolu tudd leen ma lan la la ci tegal mooy bu ngeen ma tuddee ma tudd leen tudd yàlla ci ñun mooy naka mooy di ñu yëkkati di ñu dolli xam-xam di ñu dolli yëg di ñu dolli zawq di ñu dolli mën man yépp tudd yàlla ci ñun la waaye ñun nag suñ tuddam yëpp mooy laa ilaaha illallaah yaa wahaabu yaa turam yi koy ñaanee rek yooyu dañ koy tuddee waaye tur bi nga xam ne nag moom bu ñu ko tuddee dafay feeñ ci ci ci ci ñun bu baax a baax feeñ ci suñu xam-xam feeñ ci suñu guu te feeñ ci suñu jëflante ak nit ñi yooyu yëpp fazkuruni azkurkum moo ñu ko may yàlla mu kawe moomu di la invité yow doomu aadama daan la kaay tudd ma kawaayam ak màggaayam yow doomu aadama bu ndaw bii mu ne la kaay tudd ma kooku daf laa bëggal teraanga dafa am teraanga yoo amut te yow la ko bëgg a defal mu ne la kaay tudd ma ba ma tuddee rek askurkum askuruni askurkum washkuruli ah loolu la yàlla santaane te loolu liñ ci aj nag teraanga yoo xam ne ñun doomu aadama yi ñun la ko yàlla may teraanga yooyu nga xam ne moom la yàlla doom yàlla may doomu aadama mu bari ba bugg dee Cheikh Ibrahima dundam yëpp fàttali nit ñi ne leen teranga boobu yéen a ko moom bu leen ko bàyyee ku dul yéen mu jël ko parce que bu ngeen ko bàyyee keneen ku dul yéen ñu jël ko seytaane yi jël ko malaaka yi jël ko li ci baax di dolli di dolli mindeef yàlla malaaka yi jël ko li ci bon di yàq mindeef yàlla seytaane yi jël ko dem yàqee ko ñeneen te fekk yow yaa ko moom boo ko jëloon mën naa bañ a demee noonu noo koy jëlee yàlla bàyyiwu la ngay làmbatu ju ne ma koy jëlee daf la wax daf laa wax ne topp leen ma man yàlla ma teg leen ci yoon woo xam ne moom ngeen di bëgg pour seen boppam moo tax toppam boobu ci la nekk ñun ñëpp bés bu nekk ihdina sirata al mustaqim ihdina sirata al mustaqim yàlla ñu yàlla teg ci yoon woowu nga xam ne buñ ci tegewoo buñ ci tegewoo dinañ gis ne dëgg dëgg nekkal yàlla moo gën nekkal leneen lu dul moom parce que nekkal lu dul moom perte la nekkal lu dul moom gaña la gaña la ndax gaña nga am nga yàlla yàlla am na la parce que yàlla ni nga ko bëgg a amee yàlla itam noonu la bëgg amee yàlla dafa bëggu jaamam yi dafa bëgg dafa bëgg daf ko bëgg teral parce que teral na ko ba pare waaye daf ko bëgg a yokk waxtu wu nekk rek muy dund ci teranga jooju ba muy dem aljanna ilaa daaril quds ba nga xam ne dafay mujj nee nañ ci borom xam-xam yi danañ mujj jàkkarloog yàlla ah doomu aadama dana mujj jàkkaarloog yàlla nii bët ak bët waaye ci ñu ne yoon yonent loolu naka lay mën a demee yonent ne leen weer wu am 14 jours ndax weer woowu dina nëbbatu kenn ñu ne ko déedéet mu ne noonu la yàlla demee demee àllaaxira nëbbatut kenn ñëpp lañ koy gis ah? waaye nag jullit jullit ñi ñoo koy gis jullit ñi ñooy àgg foofu ñi gëm yàlla dee ci gëm yàlla ñooñu ñoom la yàlla dig waaye ñi dee ci weddi yàlla ak kéefër yàlla mu ne na inna atadna lil kaafiriina sa'iiran wa na waaw jeex na ñoom foofu rek lañ nekk hmm? safara duñ gis malaaka yi duñ gis dara lu leen di mbugal rek lañuy gis

إلى ربه كيف يثق المؤمن بربه كيف يتأكد المؤمن بأن الله تبارك وتعالى يوفر له العناية والحفظ والصون لول يب بودما لو نيت ورا ام لا لو نيت ورا گم لا لو نيت ورا خم لا يالا نيو كو يالا خمال تي گم لو نيو كو جوتاي غون بي تاي سي جوتاي ييغا خم ني ا آه، ملائكه يي دنج ني يالا أتجعل فيها من يفس من يف من يفسد فيها ويسفك الدماء ها لول لول يو يو قبل نربين يا رجال إني أعلم ما لا تعلمون خمنا لين خمت يو يو عند وقت أم نين واي من خمنا لين لين خمت لين خمت موينة دفنا كي يوم يوم خم يوم خم من يالله دفنا كل شيء ما دمي def naa ci doomaadama yi ñu ma bëgg def naa ko ci doomu yi ba nga xam ne jotaay yu mel nii bu dajee nga xam ne nit ñi dañu dara dajaloo leen lu dul tudd yàlla ak ngir bëgg a gën a jege yàlla ak ngir bëgg a xam yàlla yàlla ne malaaka yi dem ngeen xool ñooñu ngeen doon wax ndax bokk nañ ci ñu ngeen doon wax ak déet ah wax na leen inni aalamu maa laa taalamuun mooy ñooñu nga xam ne ñu ngay daje di gëstu lu baax di ut lu baax di sàkk lu baax di gën a kawe jëm ci yàlla lu bax lolu dem len ngeen seet malaka yi ko defé ñoom tamit ñu ne moment bobu dañuy xaw rus parce que li ñu ne neela la doomu aadama mais mel meluñ ko yàlla ñu yàlla ñu xel defal ci jotaay bi muy ci jotaay bi nga xamne yàlla daf koy titero malaka yi ne len li ngeen waxon amul yàlla ñu yàlla ñu ko yàlla defal jotaay jël jotaay yi nga xamne ñu ngi koy am te yëpp yu gëstu la jotaayu bugg a xam la jotaayu bugg a dooleeku ci yàlla jotaayu bëgg a dëgër la yooyu yëpp jotaayu barke la te nit mënu ko am yàlla moo koy xiir yàlla moo koy xiir jaamam yàlla moo koy may jamam yàlla moo koy xéewalal jaamam yal nañu ko yàlla defal defal nañu ko ndax boole nañoo ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu boole nañoo ak moom ci zahir boole nañoo ak moom ci baatin boole boobu yàlla gën a dëgër bañ taseeg moom aljanna ah bañ te seeg moom aljanna incha allahu tabaraka wa taala eh, ñu ngi daje fii ci mbooloo mi suñ mbokki jullit yu bari ñu ci fitna Soudan ñu ngi ci fitna eh, hmm? suñu suñ ah tas ñu ngi ci fitna من كفدنا لما من كفدنا مو لم عالم الإسلامي تقريبا دائما يعيشون آه، آه، ابتلاء من الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا اللبس أن يرفع عنهم هذا العذاب وأن يكشف عنهم هذا الذي امتحنهم به ونعوذ si ba bële ñu ci bëri am na ñu dem ci géej gi. waaw ah, ah. incha allah yàlla yëkkatil yooyu yëpp xayu géej gi yeeg ah géej dem ci géej gi yëpp yal nañu ko yàlla teggil yal nañu yàlla may Sénégal loo xam ne dinañ ko mën a am pour Sénégal doomi Sénégal des fi ci biir réew di liggéey ndax sax ñu mën a développer suñu réew fekk suñu doom yi taxawuñ liggéey seen réew développement du am développement du am. yal nañu ko yal nañu ci yàlla musal suñ doom yi gàddaay rek di dem suñ doole yi di gàddaay rek di dem suñ borom xam-xam yi di gàddaay rek di dem yal nañu yàlla teggi loolu may ñu lu ñu lu leen fi téye shukran jazakumullahu xeyran ah, ah. salaamaaleykum ñaaxarañ loo ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay tudd ñu ngi lay ñaanal yàlla yal yàlla yàlla yëkkati la آمين آمين آمين آمين آمين آمين